sëriñ Touba mi ngeen tuddee sëriñ bu mag bu ngeen demee ca sud-est asiatique am na fa pàkkub suuf bu tudd Tibet xaw a niroog Touba ci tur am fa dëkk bu ñuy màggal bu tudd Daaram Salaam niroog Daaru Salaam ka ko jiite ñu di ko wax Dalai Lama lim tekk ci Chine mooy sëriñ bu mag bi bu leen xeeb seen bopp da ngeen ciy jàpp te bañ a xeeb keneen. mbirum yàlla nag dafa nanguwul bu laxasee xasee yëkkati kenn bokkati la bu ngeen ko seetloo bu ngeen jógee ndakaaru ñëw ba njaareem tableau bi wone fi ñuy jëm bindu Touba Mbàkke la bind waaye kenn jëmul Mbàkke Touba lañ jëm kiy joxe météo du figuré ci biir carte bi Touba te ginnaaw Touba waxuma njàmbat de damay leeral damay leeral mbirub yàlla ngeen def dul nangu bu la joxee cër dalay yoral boppam ndax bu keneen jàppee mu wàcc ak moom du ngeen ci gis Touba li ngeen Fatick yooyu ngeen di gis te fii ci bu dee population ñaari million ak nangam ñoo fi ne Seydina Moussa ba ko na mere def ne l'obélisque biñ ko tuddee woon monument yi ñu doon bind ay turam nañ ko effacé te génn ko dëkk bi waaye xam nga lu ko ci yàlla fayee suuf sëpp وأورث الله موسى ولقومه الأرض مشارق الأرض ومغاربها لولا كو سي الله فاي خيتام بي سي ني غنا تاد لاñ بok فرعون كين جيساتول مبكم serigne توبا دا نين كوي جوخ ci يين تالوبي دا نين دي نانغو ليرو لي نين دون jébulu gi gën a rëy ci li ñuy wax ci murit sunu borom daf ko wax ci alxuraan ndaxte jébulu mooy maa ngi nii ni ab malade di def docteur rek la ni ab élève di def ka koy jàngal rek la ni ab liir di def ndeyam ji ko jur la bàyyi ko mu defar ko loolu la waaye jaam kenn ko am mu yàlla waaye fala wa rabbika la yuminuuna xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum summa laa yajidu fi anfusihim xarajan mimma qadayta wa yusallimu taslima loolu la alquran wax yàlla dafa giñ ne maa ngi giñ ci sama màgg man man yàlla ne yow Muhammad ak lu ñu la mën a wax li ñuy wax du dëgg li fekk dikkuñu ne la jébbalu nañ ci yow bàyyi nañ la ak sunu bopp looloo tax sëñ Tuubaa digle jébbalu lii ñu tuddee sujjóot sujjóot doonu ko foon loxo la tudd waaye même bu tuddoon sujjóot yàlla bi mu bindee aadama def ne nañ ci sujjóot ñépp su jot ci Seydina Yusufa dafa gént fukki biddéew ak benn di si jot ci moom weer wi ak jant bi di si jot ci moom lu gudd la waaye fa mu mujj dafa am ba ba bokkam yépp dajee ndeyam ak baayam mu teg leen ci kaw lal bi toog dend ak ñoom fukki doomi baayam yaag benn tàmbali di sujjóot ndeyam ak bàyyi mi jóg di sujjóot kon xanaa koo bokkal ñu di yonent bu kenn waroon a bañ a sujjóot ci keneen ñooñu duñ ko def ndey ak bàyyi ñoo gën a mag ci àddina dañoo jóg moo tax mu daal di mel ni ahada achara kawkaban mooy fukki doomi bàyyam ak benn wa sawal wal qamara mooy ñaari aba aba ñaari waajuram loolu yépp dafay mat di leeral tariqa ak yi nuy def fii jëkkut ci noonu li jëkk am gannaaw yonent bi ci ngir ngir mooy abi xanifata ci juróom-ñetti fukki at gannaaw yonent gannaaw hijra ci la ko sase malik ibnu anas gannaaw juróom-ñeent fukki at ak ñett shafii gannaaw téeméeri at ak juróom fukk ابن حنبل جناو تيميري ات ان ينفك ات جروم بن حديثي ني داجالي ابن اسحاق مو جانغال ابن هشام سيرة تي سيرة يي ني جانغ سي سنغال ييب ابن هشام موكو ديس تي كوكو مومي تام جناو يوننت بي امنا تيميري ات سوغا فيني بي يفي داتا دوخ دغ دغ دغ موي السقفي والجنيد سقفي موي نجاي جنيد iraq la ñu nekk seen ñaari bàmmeel yi dañoo dend ñoom ñoo leeral sharia ba xam ne shariatu dafay ànd ak xaqiqatu shariatu kese mooy sakket wu amuti xera xaqiqatu mooy xere kese yu amul sakket waaye lu bon bon xer dana taxaw moom bu amul sakket sakket nag bu amul xer dadul taxaw waaye nag dañ leen di boole ñu dikk ci sëriñ Saalihu ñi nga xam ne nag ñooy bokki jullit yi bokki wëlëre yi dama leen di sant ndax nañ war a mel mel nañ ni ndax dañoo wax ne koo yilifut ku ne sa nawle la kon nawloonte lan seq ñoom te nawloo nañu sëñ Saaliw jàpp nañ ko waaye nun ñi mu yilif nag dafa am nun war a jëf leen ak moom ma di leen xamal ni nit la ñuy màggal ci moom doo ko xool gis ko dëmm yi ngeen baal ma ak dëmm yi كندو خالو دم خدني كيف دم له دانة جبير فكان خمود لوم سواءين كتي يستون جكاب كنغرا لين خم بيدن شوير ويكن دونا دخول خم كما قلت يوم نيدم شوير واقين يوم كون سين صالح نوايا دي ويف بير من دجي بني كتب نعم فين كيام نعم فين كيام نختي سونو بروم داني ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون تا كان ورغا ني وارغا نات سا بوب سي مير مو ني ناخ سونو بروم صاح بوكالي بيم كو تري دا فا واخ ني ماغي لين دي ليرال لي تخ ما باج كوما بوكالي تا سي يين لا كوي مثال ناخ نانغو نين ليما لين ماي سي سخنا اكي علال اكي اوتو نين نيو فك كين ديكو جيفانديكو ني نين كو دا جيفانديكو نونو نين كو باغي ني لا باغي مايت sama nguur gi ku ko bokkaaleeg man kenn ku ne na seet boppam na mu ku ko aar na mu ku ko may jàmm na mu bëggee ku ko bàyyeeg boppam mu xaaxtandiku ñu xam ne daa waaye bëgg na ko te kat wolof dane bukki bëtt bunt bant benn bëtam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu أمره يا فائق الخلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما عن نصر في الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقارب في الدين أو في الدين والأجانب وارحم جميع الأولياء والأمة ولتكشف الذي اعترى من غمة ليس لأمة النبي سواك يا مكثرا صببت لي جدواك واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وذد من حسدوا واشغل عداك